rek responsabilité. responsabilité ak administration budgétaire bi jàmm ak salaam ñu teg seen règlement intérieur man leen man sama règlement intérieur mooy naa fi dugg ba génn kenn du ma dégg ma salfaaje seen règlement intérieur dama bëgg suma génnee di wax ngeen respecté kon du ma def lenn luñ may xeebe fii ci biir kaso bi. Hmm. duma ma génn du def dara dama toog sama cour dix heures bu ma wooyee ne ma tu as la possibilité d'appeler ma génn isa xam ne su ma woote. Hmm. dañ laaj numéro bu ma woo ak lu ma ko séqal ñu bind ko gis nga dama leen koy yombale woon xam nga lan laa doon def hmm. man sama jabar laa doon woo ak sama yaay bu bëree ba bëri sama avocat yi ñetti numéro ñetti numéro madame laa doon jël pour nouvelle jël nouvelle bi booy woo maire bi pour rassurer ko troisième sama avocat yi laa doon wax ak moi ba ma ba xam ne lii xaw ma lu ma nural nag safetuma dara ma leen nag damay jóg xeex. très bien. jóg xeex laay def man. donc hmm. ma ne leen damay xeex. fu mu yem neex. Hmm. fu mu yem moo tax def nga lu tuuba nooteel bi jeex. waaw tey tey vous êtes libre. léegi nag te da ko xeex. léegi nag. ma hmm. laa man vraiment dama lay gërëm di la sant naa foofu lay tàggatoo ak yow. ah. di la gërëm di la sant bu baax a baax a baax a baax. di la ko delloo grand di la ko delloo. parce que sa taxawaay non sa taxawaay dafa mucc ayib. Hmm. te def nga ko te c'est la première fois maa yow tey jii ñuy mën a wax nii. Hmm, ñu ngi koy ñu ngi doo ko wax. dama la doon déglu. Hmm. nga déglu. dégg la ñu am respect mutuel. ndeysaan. ñuy wax ni ma wax ne la maa ngi lay big baax a baax a baax a baax. sa dernier la sa da nga ma big te boobu mus wax. ñu jàpp ma ne waa ji dafa mel ni daf ma am lu mu ma dénk. ca ba muy dem parce que daf maa big am lu mu ma jox gis nga kii bu dee ma dee ànd ak moom lu ko dal ma dal ànd ak moom. à partir d'aujourd'hui je déclare. nit pare naa ci benn guerre infernale ak contre le gouvernement dinaa jaar fu xasaw. ci depuis bu ma ko commencé. waay fu kaso xunn depuis boobu seen lépp lañ xam seen ndey seen bàyyi fuñ juddoo fuñ yaro fuñ màggee doomu biiral yi ba ba da seen a jaxase. kenn mënu koo wax lépp kenn mënu koo wax. wax lépp de. <laughs> dinaa la wax benn affaire hmm. man nag damay lancer un message. Hmm. Euh, man de dinaa ko def sama yëfu bopp. Hmm. Karim ak Cheikh Oumar Diagne. nañ trouver solution ñu génn ci kaso bi. Hmm. ñu génn les autres ñi nga xam ne dañ leen jàpp. Hmm. ci waxi président bu nekk xam yaa ngi déglu Mollah man xam naa da ngay déglu Mollah wala sa soxna di ko déglu wala say doom wala yooyu ñu ngi jëm ci décembre. 31 hmm. décembre. xale yii ñu jàpp ci ay jàpp yoo xam ne même juge yi leen di jàpp seen. xaqulaayu taala xam ne du dëgg mais ku bañ sañ a nangu. léegi nag xaaral ma seedeel lool loolu xaaral ma seedeel loolu avancé dañ laa jàpp yóbbu la di la commencé enquête état bi gouvernement bi woo ma direct. waaw bu ma déclaré ne dinaa commencé attaqué leen ñu ne ma xanaa xamoo ni Pape Alé Niang semaine bii passé million Mermoz Macky Sall recevoir na ko am na lu ñu wax waaye la mu te la mu engagé wu te defu ko moo ko jural lii te maa maa ngi koy doog a wax fii maa ngi koy doog a wax fii. léegi bañ waxee loolu ba pare. Mhm. xam nga lan laa leen wax. Mhm. ñetti laaj laa leen laaj. xam nga Mermoz moom kenn doo fa kenn du fa dugg te woowuñu la fa. Mhm. voilà. waaw dëgg la kër gi rek déedéet waaw kenn du la woo Mermoz kay du n'importe qui fay dugg dañ lay woo. la ñu wax ca troisième mandat ba. Hmm. la ñu wax ci libération Karim Cheikh Oumar Diagne te xaw ma woon na maa leen fekk la wax ci force spéciale yi dama leen wax ci décrépation libre euh, réew mi nañ hmm. bàyyi nit ci jàmm jaarale mbir ci yoon bàyyi waxi troisième mandat. moo tax bañ ma ne bañ ma woowaatee ne ma ah, lu tax doo wax loolu ci live ma ne ko parce que damaa xam ni gor gii nii kii du jaay mukk askanam soxlawul ma koy wax parce que xam naa ni Pape Alé li ngeen ko bëggoon wax loo waxu ko li ko bëggoon def loo defu ko moo tax tey ngeen koy tëj ci kaso yi donc kooku soxlawul ma koy wax askan wi ma xam lu ma xam dëxëñu toog noppi. parce que kenn du ma manipuler man kenn du ma manipuler. voilà combat combat yi ma yanu yëpp. Hmm. combat yi ma yëpp. ban moo ci am répercussion directe ci man. Hmm? Euh, euh, hmm. benn. benn benn kay benn gisuma ko. du benn. mënoon naa ko ñàkk wax duma ma wàññi dara. gor nga garmi nga de. ma koy wax xam nga euh, ba may gunge Macky Sall ñu jën ko blanchiment d'argent sama yoon daf ci nekkoon. Hmm, sa yoon newu ci bu la neexoon jaay sa bopp heure bi léegi. ma grand bu neexoon. plateau ba may toog ci plateau 2S. Hmm. Serigne Mbacke Ndiaye mi annoncé na Wade jàll na avec cinquante trois pour cent. Hmm. am benn site internet bu ko bind. Hmm. ma taxaw na leen c'est faux on va vers un second tour Macky Ablaye Wade. fii la ñu fekk no dëgg la yi fi nañ dem xooli. dëgg la. man xam nga man dañuy wax ma ne leen natt leen ma ci man. toog naa fii di défendre Idrissa Seck bañ na pro sa Seck la. ma toog di défendre Khalifa Khalifa Sall. Hmm. ba ko xam nga Macky Sall doomu doomu bàyyi lay wooyee Khalifa Sall. Hmm. jàppee ba non toog naa di défendre Macky Sall fii bañ na pro Macky la gis na Macky Sall ba mu yeggee au pouvoir. Hmm. dama taxaw buntu 2S am kenn ku ma doon ma ne ma ah Papa yow looy def fii. ma ko lu may def fii mooy lan fii laay liggéeyee mu ne ma ah yow Macky jël nguur gi da ngaa war a nekk ci wetam Macky yow joxu la benn poste ma ne ko parce que da nga foog ne loolu laa wut. gis nga. Hmm. gën <laughs> nga nag xam nga nag dinaa la noonu xam nga dañuy wax xam nga ñoom ay waa Papaale ku koy informé ku koy wufu renseignement loolu mooy seen problème. Hmm. dinaa leen wax nag commencé nañ am problème gën nga ci jàpp bi. Hmm. dafa bëri ay policier ay gendarme yu ma ne ay message de soutien. dëgg la. na ma génne la jàmm loo bëgg a xam ñu wax la ko. <laughs> te yàlla xam na ne xaw ma wër aw ma woon contact yooyu. kon nag def leen ndànk hmm. soyez prudent def leen ndànk def leen ndànk def leen ndànk hmm. boo yi ngeen dugal kaso buñ découvrir métti kaso ba génn duggaat kaso du leen saf Guy Marius Sagna ñaata yoon la dugg kaso tey nekkul député hmm, waaw député la de problème da koy gën a waaw donc il faut que les aussi vraiment man de dama koy ñaan ñi wër président Macky Sall di wax ak moom ni koy xiiñ su nekkee ne am nañu baax hmm. parce que xam nga président euh, Abdoulaye Wade lan moo nekkoon foor li sax xam nga ko euh, Mola hmm. tey ma wax la ko hmm. dafa mën jigéen ju baax ju nekkoon ci wetam jigéen ju baax laa wax bu nekkoon ci wetam jigéen ju baax bu nekkoon ci wetam xam nga jigéen ju baax jooju a la waxoon kan la woon sinjeeliw Sindié Liwaat a été au côté de Sud FM ba ñu tëj ba ñu tëjee ci affaire Salif Sadio di wax ak papam pour ñu libérer ñu Sindié Liwaat a été côté ci papam ba ñu jàppee affaire Madiambal di négocier pour ñu libérer est-ce que Macky Sall tey am na jigéen ju baax ju nekk ci wetam bu koy bu koy wax na ko am yërmande bu koy wax na ko président xale yi nga tëj ñii bàyyi leen amul njëriñ wala am na nit ku baax ku nekk ci wax parce que jigéen xam nga ñooy ëpp yërmande. waaw amul jigéen bu baax OFCR la fa yor ko ba mu ne moo tëj moo lay tëjaate moom si boobu day tëjaate OFCR. ndax hmm. loolu lay wax hmm. dama ne. boo amoon jigéen ju baax ci wetam xam nga jigéen day am yërmande. Hmm. yërmande nag du yërmande ngis tal. yërmande boo gëm la di ko doxal te yàlla tax. nga toog ne a ah, coow li bari na ci réew mi am jàppal am ñan lañ gën a xam ci Sénégal léegi Bokar Yàgg. Hmm. directeur police Moussa Fall gendarmerie hmm. Amakodou Diouf procureur Mamadou Seck juge hmm. Maam Diallo doyen des juges juróom ñooñu koo wax sénégalais boo gis ñu limal la ko te loolu yëpp fitna la waaw fitna la loolu yëpp fitna la amul lenn ci sedd réew mi am jàmm doo dégg ñooñu déedéet réew mi am jàmm ne doo dégg ñooñu waaw ma ne ko réew mu am jàmm de doo dégg donc mais tey boo bu bëggoon lancer sénégalais lan la ñu war a taxawee jamono jii nan lañu ñu war a taxawee sénégalais xam nga Mawla nee naa leen législative bi def nañ lu ne. Hmm. conseil constitutionnel utiliser leen ko mu jël ay décision yu bon a bon toroxal seen bopp. Hmm. parce que fii loo fi def dañ koy nettali ñu ne kan moo defoon li ñu ne diw. loolu la tax mën leen il faut ñu éviter wu de se comporter en vulgaire crétin quoi parce que ëllëg nguuru Macky day jeex. Hmm. ñuy dox ñu ne ah kii moo daan wax dee. Hmm. donc lan lañ deful éliminer liste yeew yi éliminer parrainage bi ay nit éliminer lu ne tax nañu am majorité assemblée nationale. amuñu ko de. Sénégalais yi xamuñu sax ñun voté. alhamdulilah Sénégalais xam lan lañ def. Hmm. vote sanction xoolal wal leen tey ñi assemblée baa ngay toj. wallaahi musul am. lii musul am. Hmm. ñuy wax ne woy assemblée de de mais ñoo dugal foofu ay saagakat. waay. ñoom ñoo fa dugal ay saagakat. non dañoo ah, xam nga boo pertee lépp nga yàq boo pertee grand lépp nga yàq dañoo perte donc il fallait ñu indi ay saagakat ñoo xam ne pour pour yàq affaire bi carrément parce que dañoo perte. soo xoolee pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal un président de la République n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Mhm. ba Sénégal di indépendance ba tey. Mhm. kon lu Sénégal di ba tey. Mhm. kon xam nañ. xam nañ de. donc vraiment mola Sénégal daal xam ban taxawaay lañ war a am. fulla fayda na pat kaw biñ bëgg a dugal ci réew mi buñ leen ci topp. buñ leen ci topp de. Mm. mu leen ci topp de bu ñu fexee ba police ak police li mu jënd ak gendarmerie ci grenade lacrymogène mm. bu mu tàkk piège bi ñu bëgg a dugal ci leen bu loolu yëpp am sénégalais yi nañ toog jàpp seen morse ñaam ma mm. bu waa ji forcé na day doon candidat deux mille vingt quatre sénégalais am fulla ak fayda parce que gis nga loolu bu jàllee ku fi palawaat Sénégal xam nga Macky Sall bu jàllee 2024 lu muy def lu muy njëkk a def. sa xam nga ko. yàlla nañ ci yàlla musal. moo la tey ma wax la ko xam nga lan lay njëkk a jàpp. Hmm. lan lay def. Hmm. bu li muy njëkk a def day dind constitution bi limitation des mandats loolu lay njëkk def loolu mooy premier projet bu muy njëkk def. moo tax ñu naan deux mille trente cinq loolu mooy tax mu ñaan naan deux mille trente cinq. moom may boobu. maa la hmm. may boobu. loolu leer na léegi nag. bàyyi ma nekk ci gardien gardien de la mi mi may wax mi may wax ne ma euh, noppalul nag. mais mais grand xam naa foofu lañ lay bàyyee mais Sonko wax na leen ko. nee na leen te waxoon naa leen ko te Sonko wax na leen ko bii tey xam naa déglu nee na leen boo leen sàgganee ba waa ji toogaat fi man pare naa ci àdduna ak àllaaxira baa may bàyyi politique bàyyi lépp dem sama yoon taxawee nële. waa ji torox ba boo tax mu ne deux mille trente cinq. xam nga luy seen plan boo déggee ñuy wax deux mille trente cinq. Mm-hmm. seen BCM e yeeg sarañaat yëpp di wax loolu. Mm-hmm. xam nga lan seen problème. waaw bés bu mag sàll forcé jëlaat nguur gi. Mm-hmm. bu dawalee tuuti xam nga lu muy njëkk a def. li jënd mën na dissoudre assemblée nationale def élection législative bu amee majorité bu confortable. majorité qualifiée. mu dindi veru limitation des manda ne na day toog ba keroog ko neexee mu dem. allahu loolu mooy seen projet. loolu nag xam ñun ñi ko xam. Hmm. gëm démocratie duñ ko nangu. mukk dee ñu ko gënal. wallahi la azim. voilà duñ ko nangu. léegi daal. Hmm. voilà. Hmm. beneen xeex bi man. bu ma noppaloo tuuti dinaa ci dugg mooy Karim Cheikh mat Diagne déjà ñuñ def nañ trois mois ñu xool ñu leen di libéré. dañ ñoom yërmande. maa ngi la gërëm baax mon frère. waa jërëjëf grand. et puis xam naa. macha maa ngi nuyu tamit ñi lay jotaan ñëpp. jërëjëf jërëjëf grand. jërëjëf jërëjëf Mollah. namoon nañ la merci beaucoup merci beaucoup macha allah. reposez-vous bien.